kii dafa am ay jàng yu mag yu am jàng yu mag jàng yi nag am na lépp waaye lenn rek moo ko manqué mooy ay tube benn naar jóge Mauritanie indaale ñeenti gëléem bu mu indaalee ñeenti gëléem yi romb ci sëriñ bi sëñ bi teg ay bâcham amul ay tube daan naar bi comme damay jàng te aw ma ay tube dooma abal gëléem yi naar bi ne ko yaa xaati gëléem pour la kii gëléem pour jaay mu ne ko dama bëgg a gëléem yi téyel ma tànt bi mu ne ko na lay téye tànt bi mu ne ko bii day taxaw fële bii taxaw fii bii taxaw fii bii taxaw fii ah après la ku nekk nag ŋànk buum xëcc baas bi mu ne ah kon de guddi rasulillah moom sallallahu alayhi wa da ciy bokk ah gëléem yi ku ne ŋànk gaa yi jàng jàng yu neex lépp mag sëñ bi xëy suba di grématé ñu ngi sant ñiy togg jàng ji ñu ngi sant taalibe yi ñu ngi sant ñi ñëw ak ñi fi ñëw ak jàngkat yépp ndax jàng yi mat na sëkk ñëpp kontaan nañu waaye ba ñu santee sunu mbokk jullit yi ba pare nag sant sunu mbokk gëléem yi ndax gannaaw yàlla ñoo téye baas bi rek gëléem yi ree ma ñëw wala ma dem tàccu leen mu réer ma xool maam Kaarlo non dama doon nuyoo kii nag ñaari pël la xam nga pël dafa bari tiital pël yi mosuñu mandi xamuñu lan mooy sàngara pël yi jaay nañ seen nag bari nañ xaalis kenn ki daal ne demba <laughs> jooni min mari kaalis kam nga nu def nañu dem Dakar sàmb na ko combattant Dakar mu ne eh ñu tangal sunu yaram na ay ca say gay ñu dugg si bar bi tok kene ka daan ne sàmba looy jël sama ne ko ca gis nga borom waxu bu reey bi ak yatam bii ndekete jooni walkeer lay wax tigg ma ci kaas ah ñu tegg ko kaas kenn ki tok ba sag dem looy jël mu ne gis nga xaj bu ñaan bi xaj mu melni ko samone bu roy bobu nañ ma ci tigg kaas la gordon lay wax pël bi ne tes joni walkeer bi ne ko fuuf dan ne ca kono tubab mo bari kam-kam ma ngi toog Dakar di gisu suma bop France rek mu dan ne samba lo gis sam ne ko ca dafa melni dafa am ñumay de way waaye len leen klando biñu duggu dafa am rek raasul ñëw ramasse ramasse benn pël bi jaar fii beneen bi jaar fii ndekete auto police mi ngi garé bi buntu Jean Jaurès benn pël bi ñëw dugg si naan i jàmm <laughs> kon gars yi bi ñuy jàng certificat ak diplôme yéen door ngeen jàng waaye njuy naa leen eh yóbbu ma kàr yàlla <laughs> mbir mi yaaw na kàr yàlla laa jëm police ne ko eh luy lal kanaa sa paas ngay laaj ko paar yàlla paar kàr yàlla xool gis ay ramjees xoolaat gis ay casque xool gis ay liif daan na ko ca waxoon naa ne kaar yàlla laa dem de waaye def naa ay kaar liifu may keeñ waaw kon gaa yi waaw yal na yàlla matal lépp kon damay nuyoo nii rek xam naa tey nag il nga jox ma nuyoo Hamza seen maire nit ku baax la Hamza suma xarit la xam nga lii yëpp mooy lu ñuy wax Sénégal benn bopp la ñun lu rafet la ñu xam lu rafet laay wax lu rafet lay jëf kon yàlla na yàlla dolli sutura si barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw bi nga ñëw nag yaa ngi sa kër. waaw non yow daal gis nga euh, mon ministre damay bañ génn fii nga boole ma yi waaye yow bàyyi noonu rek a <laughs> ah, jiit bi xam nga jiit bi de man maa yëgal gars yi ma ñëw tey ma mel lu neex. Carlo tey fi nga génn baax na de. yaa ngi torojo morojo content de toi yaa ko tey waa ji dafay jóge Amérique jóge Sénégal di dem amerique ba muy jógee Sénégal dem Amérique benn terrain la amoon ba mu demee yàlla ubbi xéwal mu am ay milliards gis gàlle gars yi nu mu naay see mu ñëw fii ne moom terrain moom moo koy defal asteg nañ ko wër maçon yi wër ko mooy joxe plan boppam day jékki-jékki naa Shalom. Samra Kushei. Samra enfant. Debra. daan ne bëreet ne teg ne ku. ne ko xanaa foofu mooy toilette bi mu daan ne mooy yes yes yes yes yes ma ñëw wala ma dem tàccu ma xool waaw nii rek de nii rek la moom jàmm rek affaire yi moom euh, du jeex kii dafa am benn paa dafa yar xaram ba xaram baax xar mu mag xar def ku miin góor gi si dëkku àll bi bu ngoon jotee day doxantoo xar mi xar mi da koy topp mu ñëw ba si taatu benn garabu mango di witti ay mango xob yi pour yóbbaale nekk da xar mi devancé na góor gi gis nga xur bi mu dugg gaynde fa nekk gu mag tëg di nelaw gaynde gi yem si xar mi defar xar mi lekk na xar mi bu yàgg du loye nag di ñëw xam nga xar mi dafa xaw a maron gaynde gi maron du loye nag paa baa ngi naan eh ana suma kar bi <laughs> fu mu dugg nii caay xoolal fii rek seen ba yàgg de loin à peine 200 mètres gaynde gi di ñëw xam nga doxunu gaynde rek maanaam kool ko rek xam fu mu nekkoon hmm. eh, fu mu demoon nii sax laa xamu ah à peine 30 mètres 20 mètres bu ma xamee ne gaynde la ah mag mën naa bàyyi si réew ma ñëw ma dem tàccu leen ri xam nga kaay ma joxe télé bi xam naa mosoo dégg bi paa bi gaynde gi dafa lekk nagam mu jël mokk doom gi sox ko def si biir àll bi deux semaines di wër gaynde gi gaynde gi di ko wër mu ngi caaj gaynde gi gaynde gaa ngi koy caaj gisu ko mu dox ba sonn xam nga àll bi léeg mu am garab gu mag goo xam ne ndox bu tawee ndox mee fa jaar sempi reen yi garab googu mën nga ci wéeru ci reen yi paa bi dox ba sonn rek ñëw wéeru ci garab gi jël mokk doom gi teg ko peexu garab gi jàpp ko mu commencé for bët fi man ak yow gaynde gaa ngi nii toog jonkon paa bi gën dajjan dajjan xippi bët xool gis gaynde gi xoolaat ndax dëgg la xawal laal yaram wokk ko xam na ne kii gaynde la jàkkaar lool xam nga gaynde dafa doy loxo du jug paa bi fu mu toog la toog rek gaynde gi di ko xool mu koy xool mu koy xool mu koy xool mu koy xool mu koy xool ñuy xoolante paa bi bu laalee fetal gaynde gi dal ci kawam muy xool gaynde gi di gaynde gi ko xool mu koy xool di ko xool non mag mag la rek muy xool gaynde gi gaynde gi xool mu jékki-jékki rek daan gaynde gi paaw gaynde gi dafa dee waaye moom it dee na ndax compression pan gi moo ubbi wër gi mu dee tàcc leen mu ne ma du ah, noonu la fi ay kii doon defoon ay pël ñëw Mbàkke xam nga bu jëkk amoon na ay bomba ñuy wax xeeru Touba. kii naan man a suma eh, mais xam nga xàmmeewu ma la kii moo ñu jàngal maye moo dàq maye fii Ismaël Lo daw di nga dóor benn de ma ñëw léegi pël bi commencé eh sa bonbon bii nu mu tudd kii naan kii mooy keeru Touba mu ne ko waxal nank de bu la bàyyi faal yi déggee du baax de dañuy lekk jumaa ji de affaire bi dafa neex ma ñëw wala ma dem waa mais grand. waaw man dama lay jox ñaari loxo yow moom non yow suma yow yow non non non yow. waa mais xamee ma la i na nga def. eh waaye bul centenaire de. waa grand tànn xamee ma la da nga gën xam nga mooy li ma wax réew mi réew mi jàmm la kilifa boo gis fii bëgg nay rey li ma koy may naar bi dafa ñëw dugg ci benn genre dibiteri bu ne am na dibiteri olof dibiteri gourmet gourmet yépp am naar bi ne daka rek dugg ci biir euh, dibiteri gourmet bi salaamaaleykum sal yekkal bel am na yàpp bu neex fukk ñaar dagal ci man foofu waaye femme bi daggal ko jaay ko ba pare toggal ko saafal ko mu lekk ne fa wallahi la asin yàpp bi neex na trop bi xanaa fukk ñaar la nekk tey mbaam la lekk de mu ne ko euh, euh, bi fukk ñaar la c'est quoi mais mu ne ko sax pox pox li përk mu ne ko përk léegi moo mu ne ko kii la quoi euh, jàpp xale waxal lu leer lépp mooy përk përk حرله ولا جناح ولا لا لا كنا كنا فرق كسو للمو كسو كنا كنا كي أيش الا خذ الا أرام أرام أرام الا يوبي ما دفنا فخين يذبحوا درع يو باينون باي نك بروبليم لك na mbam genn ñu أي ko té ay xaar yalla gravé non rek gis ben ciog mbam and ak ay 30 dom daw di génn kicib kicib mun a yaa ram rasulullah eh, dàq na leen l'islam eh, eh, sib na leen yow dàq na toog ba seeg dañu waaye ak neex yëpp yéen ngi toog ma ñëw comme da ma bàyyi micro bi daw garaawul ndeysaan xam nga loo gis àdduna rek tey moom yeneen moo ñëw kii benn agresseur dafa nekkoon ci koñ bi ponk lu mbër la nag nganda mais ku payi ku jaar mu agressé la far yàlla def ñu jël ko mu dee waaye naan duma ko sang sang leen ko sanguñu ko kii lu ñu yàgg won suñu faar yëpp dajji na ko loo yor mu yóbbu ko dépense xale yi njël gi lu ñu la jox mu yóbbu ko kii kañ na dem rek waaye seet leen si yàlla yàlla bëgg na ko koy tax waaye seetuñu ci kenn nga yàlla kenn lañu seetul kii xam la ñëw rey nga naan ñëw teral ñuy négocier benn solaa jóge fële ne tat ah, euh, euh, bàyyi naa ko amul sen yëpp lu xew ñu ne ko non kii sulaar la daf ñu daal agressé dee na léegi lu ñu bëgg mooy ñu seet waaye ñun duñ ko sang maanaam bu ma joxee cinq mille junni wala ak li lees ma sang ko ñu ne ko ayca bi ñu koy sang ñu ngi jël néew bi wéer ko xam nga sàkket yooyu wéer ko mu sang sang ba mu baax yëkkati loxo néew bi doon ko sang ba mu sangee loxo néew bi ba pare elee mu wàcce waat loxo néew bi defu ko bàyyi loxo néew bi ci kaw mu sëgg di raxas tànk yi loxo bi barasta ku wàcc xam nga poids bi muy wàccee gis nga bu mu ne kang si diggu sulaar bi sulaar bi dafa tëb deux mètres taxawaat na ko ah ben lii tax di sang waaye tu verra avec moi na la wonne munu lo tiaj waxasu dabbal loxo neew bi yeb bañ yeg yeb la dam man si la fa jógee dem sama yoon ma ñew wala ma dem kon mu na dem ma dem non ma dem tàccule ma xol ma dem ah comment lu bees waaye yaa ko tey jàmm rek am kii nag xaaral ma may leen benn tey bii xam nga yu bees la nag waaye ñëwagul kii dafa am benn mbër bu nekk ci koñ bi donc koñ bi am na ay tôlier mécanicien électricien ñëpp am nañ fi xale bu jigéen bi ñu ne dafa am ëmb ñu naan ku ko ëmbal ñu naan technicien bi la ñu naan mécanicien bi ñu naan tôlier ñi naan mbër mi la ba tey wóorul kenn bi yàlla defee euh, xale bi war a euh, wasin ah gars yi ñëw clinique taxaw ñépp wër ñii naan ñii di ko jiiñand ki naan ko yow la kii naan du man kii naan du yow liir bi jékki-jékki rek daan ne put rek génn ndax ne bu ma santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sant samay ñaari waajur maa ngi sant amateurs yeeg promoteurs yeeg chargé de la lutte di sant ñëpp si barke foofu sallallahu alayhi wa sallam kon na gars yi fii la ñu tàggoo rek ba beneen yoon merci beaucoup.